ndax Macky sàll am na droit xam nga lu tax société am société li tax mu mën a am mooy dañuy am kuréel goo xam ni lu mu dogal nga ànd caag nga bañ caa ànd danga nga cay tënku bis bu ne nga dem États-Unis Cour ba génn décision goo xam ni ñu bari dañ naan lii ay balla poy de la ay ay yu ñàkk yu amul benn teguwaay la wante doo gis benn américain bu jëdul tënku Sénégal benn kuréel mooy wax ku sañ ku sañu la bokk mooy conseil constitutionnel mais li boroom xam-xam yi wax te muy ay boroom xam-xam yoo xam ni seen xam-xam du xam-xamu caaxaan ku mel ni professeur Serigne Diop lu mu wax ci constitution takkal téere fii ba Koulikoro fii ba Casablanca fii ba Johannesburg ku fiy jàngale droit constitutionnel laaj nga ko bi bis nga gàgg mu gàgganti la Serigne Diop nee wala boog Serigne Diop nee ma amul droit te amul benn porox ndool bu mu jaar pour am droit wax na ma ko loolu leer